mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média dal leen jàmm ci seen émission face to face ñu ci ànd ak yéen dimanche bu jot bu waxtu wi jotee tey it ñu ànd fii ak kilifa di président Cheikh Hadjibou Soumaré jiite mouvement bi di démocratie et république jiite it coalition bi naan Hadjibou 2019 amoon yéen a bokk ci élection présidentielle yi doon ci dugg ak moom bu baax a baax incha allah président ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. wala ñoo tàmbali nag euh, autis daf ñoo dab euh, dab. Sénégal mu wàllu diine rawatina ñun taskatu xabaar yi ndax noo ñàkk suñu doyen. Mhm. El Hadji Ahmed Bachir Kounta ñu ñaanal ko yàlla mu xaaree ko aljana woyofal suuf si koom. président dañ la koy jaal jaal ko suñu bopp ndax ku la xam-xam ni yow njaasaan nga. fa nga fekk maanaam fa nga say kilifa diine fa la nekk. Mhm. ñu bëggoon xëy na nga jox la kàddu gi rek bu dee am na hommage boo koy rendre moom El Hadji Ahmed Bachir Kounta. jërëjëf maa ngi nuyu sénégalais yëpp. Euh, spectateurs yi ñuy déglu yëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tuur ak sa sant di la nuyu yow tam ci sa tur ak ci sa sant euh, Ahmed Bachir ku nekk xam na ne ku ñu ràññee woon ci seen liggéey la muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu communication ci wàllu information donc mu nekkoon kuñ ci ràññee nekkoon aussi koo xam ne mun naa ne presque mbokk la woon ci man donc mboo tax maa ngi koy jaale sénégalais yëpp di ko jëkk a jaale ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon liggéey muy yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci presse bi di ko jaale aussi kilifa diine yëpp yi nekk ci sunu réew parce que sunu réew mooy réew moo xam ne lu dal ci benn tarixa dal na ci tarixa yëpp dañu bokk ndey bokk baay mu tax maa ngi leen koy jaale ñoom ñëpp di ko jaale sénégalais yëpp jërëjëf ñu ñaanal kon yàlla mu xaare ko aljanna waaye fa la suuf ci koom émission bi nag dafa am nu mu baaxoo xam nañ la ndax am na ndomba tànk bu nekk daanaka takk nga ko fii Sénégal au fonctionnaire premier ministre ministre ba ca wàllu bitim réew it UEMOA nga nekkoon président commission bi boo ñu doon wax kan mooy président Hadjibou Soumaré loolu nag damay bàyyi yéen ngeen waxal ma kan mooy Hadjibou Soumaré euh, ndax xam nga bu fekkee ne da nga bëgg a wax ci sa bopp euh, dafay jafe Euh, te nag euh, sunu réew aussi comme li ma wax ci sama déclaration wu 22 juillet mooy nañu dellu ci sunu cosaan nañu dellu ci sunu aada nañu dellu ci sunuy diine ak diine bu munti nekk te sunuy cosaan ak sunuy aada mayuñu euh, ngay wax lu nga xam ne ngay wax ci yow da ngay bàyyi rek nit ñi xool xam daal di lay juger. wax ne kii mooy kan naka lañ ko gisee euh, ak naka la lañ ko mun a jugé daal. ñu nag dañ ciy jël ay ndomb tànk yoo xamante ni bëgg nañ koo càmbar ak yow. en 2007 ginnaaw bi président Ablaye Wade faluwaatee. ñu dem ci élection législative bi mu am majorité mu def la nga nekk premier ministre ñu bëri amoon ci jaaxle yow bettoon na la à l'époque. Euh, bettoon na ma bettu ma woon parce que comme ni ma leen ni ma ko waxee woon rek bi may woo di ma ko wax. Euh, man fonctionnaire la euh, ku nekk xam na ne dama jàngee ci école yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal euh, dem ENAM nga xam ne mooy formé ñi nga xam ne ñooy administrateurs yi ak yeneen corps yi nga xam ne mooy corps d'élite yi nga xam ne ñooy yore administration donc ñun fu ñu ñu teg rek fa la ñuy toog moo tax ma ne bett ma woon trop bett na ma nag ci kaw lenn moo di boo nekkee ministre délégué au budget ngay def sa liggéey nga yeewu suba ñu daal di ne yow mi nekkoon ci presque nee naa ci suuf ñu daal di ne yow yaay nekk premier ministre dana la xaw a jaaxal tuuti da nga ne ah lan moo tax ñu war ma tànn euh, lan moo war ñu war ma tànn boobu dafay nag lay aussi kañ ci yow nga gën a góorgóorlu ci la nga daan def boo doon def benn nga jéem a def fukk boo doon jubal nga gën a jubal bu fekkoon ne am na lu dëngoon aussi ci li nga doon def nga jëm ko jubbanti ndax loolu pour simplement ki nga xam ne moo la wóolu teg la loolu bañ a am aussi déception ci li mu la wóolu gis nañ ni dañ ci teg ay athlètes nga daal di démissionné lu tax hmm. euh, démission nag xam nga loolu moom lay wax euh, sunuy xale yu réew ak sunu réew yenn saa yi boo nee démission mu jaaxal nit ñi wante man dama yaakaar ne démission warul a jaaxal kenn parce que ñun ñëpp li may wax ñoo bokk sunu Sénégal suñ la dénkee nga yore ngay dem a dem a dem a dem ba nga xam ne xëy na euh, boo ci continuer dana indi jiixi jaaxal sa réew wala peut-être dootul méngoog sa conscience wala peut-être même ki nga xam ne moo la dénk peut-être xalaat na ci xelam ne war ngaa dem boo amul ngoru yow gaaw a bàyyi euh, dafay nekk leneen. moo tax loolu la demee moo tax demeewul noonu li mu demee daal mooy yeewu naa man ci sama bopp bi ma évaluer situation wu Sénégal ca temps boobu ma xool mhm. xam ne fii ki nga xam ne moo ma jox réew mi. war naa ko joxaat moom mu yorewaat réewam xalaataat ko ndax boobu temps ku ne xam ne Sénégal commencé am na am yenn jafe-jafe yi. Euh, ba may jël di ma def euh, premier ministre dama ko waxoon ñaari yëf mun naa ko révéler fii parce que du du secret. du secret uh-huh. dama ko ne rek man de fonctionnaire la foo ma teg rek dama fay toog liggéey ñaareel bi bés boo bëggee te moom li nga xam ne moom nga ma jox. boo ma wooyee ci sa bureau bi ma jox la ko man tam bu ma toogee ba xam ne damaa war a dem da ma may ma daal di lay ñëw jébbal li nga ma joxoon ma dem te ci loolu rek lañ nekk. est-ce que gisoo woon ni nguur gaa ngi bëgg daanu parce que wax nga ko après 2009 dama am na ay local yoo xamante daanaka ville yu mag yëpp PDS daf ko ñàkkoon. mënuma wax ne réew maa ngi euh, daanoog yooyu loolu moom euh, mënuma ci mënuma ko waxee noonu li ma mën a wax rek mooy man ci sama bopp. évaluer naa situation bi xam ne nit euh, sa réew moom nga war a jiital man Cheikh Hadjibou Soumaré ma nekk premier ministre euh, toog fa rek bëgg na dama fay toog euh, te Sénégal soxla peut-être soppi loolu tam du gor du ngore am na ko fu wutu woon nag ñoo xam Macky Sall dinañ ci ñëwaat ci biir émission bi wante mhm. am na beneen doomu tànk aussi bitim réew nga xëy mhm. rek démissionné lu tax démission yomb <laughs> muy UEMOA. Euh, démission euh, du yo du lu ma yomb c'est damay méngoo man damay bëgg toujours lu may def rek mu méngoo ak sama conscience mu méngoo ak sama conscience euh, ba ma koy def itam sama yaay ju baax ji maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin ba may démissionné parce que chaque fois bu may démissionné dama koy ñëw wax ne ko ah sa waa ji de mi ngi bëgg a bàyyeeti mi ngi bëgg a def lu ma ci tegal mu ne ma loolu. day amul lu ma la ci wax lu ñaanal la parce que pour l'histoire son papa chemin de fer nekkoon cheminot la woon ba mu toogee ba xam ne mënatul nekk ak tubaab bi dafa démissionné daal di ñëw fii tijji officine am fii ci Ndakaaru xëy na peut-être loolu moo ma topp wante daal li ma xam mooy nit te moom lay moom lay wax sunu doom yi euh, nañu sax ci di méng lu ñuy def rek méngoog seen conscience Mhm. bala ñoo dugg euh, parce que UEMOA ba bëggoon naa jël taxoon ñu bëri dañ ne woon dañ la poussé vers la sortie parce que waa Niger bëggoon nañoo nangu poste bi ci mhm. Sénégal mhm. ñu prolongé woon sax sa mandat pour mois wante xaaroo fa six mois yi lan moo ci am part de vérité bi euh, part de vérité bi nag euh, mun naa ci wax tey parce que libre na ci sama sama waxin ci sama defin parce que loolu laa bëggoon jotaat moo tax ma démissionné. sa liberté sama liberté de parole euh, sama liberté daal nga xam ne danaa mun a wax ci li ma bëgg a wax ci liy xew sama réew wala liy xew à l'international sax bu ma ci waree wax ma wax ci alors ba muy ñëwee man ba may ñëw benn bëgguma woon sax a ñëw yooyu moom président Wade woo ma woowaat ma euh, ba mujj gi ma daal di ne ko loo loo décidé rek loolu la ma def ko ca laa ñëwee UEMOA ma ma ñëw foo aussi euh, jéem a def sama kentulaayu kàttan pour que sama réew bi nga xam ne moom ma laa représenté foofu comme commissaire d'abord balaa may nekk président de la commission ma siggil sama réew ci sama doxalin ci sama defin sama nekk nekkan nekkin foofu mu jëm ci def sama doole yëpp ba ma ñëwee aussi nee naa suma soxna ne ko fii benn mandat lañ fiy def bu jeexee nañ ñibbi loolu moom lu ma décidé woon la wax ko ak sama soxna ne ko benn mandat laa fiy def bu jeexee ma ñibbi ah ñu ñëw ba màndaa bi jeex mu am ay coow daal ci diggante ay réew. Sénégal ak Niger. mu am Sénégal ak Niger euh, ay wax ah nit nag soo nekkee fenn sa réew yóbbu la fa ngay def sa kentulaay kàttan a ah, ki nga xam ne nag moom lañ fi teg muy président bu bees bi ñu fi teg. bu ñëwee moom mu xam ne nii lay doxalee wala nan lay doxalee. yow da koy jàppale rek ci li mu xalaatee parce que li ma leen waxoon rek sunu personne amul solo. dafa la soutenir doon Macky Sall. Euh, mën naa wax déllu de mën naa ne boo toogee ci institution international man du question wax naa ko fii euh, ma defe noonu sax nit ñi comprendre nañ li ma doon wax parce que yow boo nekkee ci institution international du. yow la ñuy soutenir en tant que personne parce que boo nekkee yow kilifa réew Sénégal yëpp taxaw daal di ne yow la teg ci ka bopp réew nga nekk ci bopp réew booy def defoo pour nit da nga def pour sa réew parce que Cheikh Hadjibou Soumaré amul amul daal autorité boobu mm-hmm. Cheikh Hadjibou Soumaré nit la comme ni ñu mën leen jël beneen sénégalais teg ko foofu donc booy défendre. yow da ngay défendre intérêt réew mi intérêt ñi nga xam ne ñoo la fi teg mais du intérêt Cheikh Hadjibou Soumaré parce que déggoon naa ci booba temps am na sax ay ñu fi tasooti xibaar yi wax ne waaw président mi ngi dem dafay dafay soutenir ji Cheikh Hadjibou Soumaré loolu erreur bu mag la. amutoon loolu dama ne loolu erreur bu mag la ci waxin parce que du Cheikh Hadjibou Soumaré dañuy soutenir intérêt wu Sénégal la ñuy défendre xam loolu nuance la mm-hmm. bokkul. mais est def que défendre nañ Sénégal. loolu nag moom moom ngeen koy mën a laaj parce que moom moo ci mën a tontu li ma ci xam daal ba ma toogee ba évaluer foofu tam situation bi xam ne euh, méngoowul ni ma gisee méngoowul ak man bu ma doon man ni may doxale ca laa ne suma jabar ma ne ko euh, dellul dakaar nga defaraat suñu kër defaraat yëpp te yóbbu bagage yëpp ci la ñëwee fii defaraat fii indi bagage yëpp ba man ñaari costume laa fa bàyyi woon xaw ma ñett nga xam ne naa mën a dem mission dellu si moom mu ñibbisi yore kër gi bu ma ñëwee sax mission bàyyoon naa ko bu ma ñëwaan mission sama kër lay nekk lu ma nekk à l'hôtel mais est-ce que yow euh, itam jiitaloon nga intérêt senegal maanaam bàyyi poste ba mu mujj ci loxoy Niger euh, sama intérêt réew dama ko mos jiital ci lépp lu may def mais jiital sa intérêt réew mooy aussi ña nga xam ne ñoom lañu sas ñu yore la nga xam ne ñoo la ci ëpp autorité ñooñu nga xam ne ñii la ñuy yow ak ni nga ko xalaatee méngoo na bu méngoowul yow nooy def. bëggoon nañu xam nag position président ci loolu parce que sénégalais yi xam nga. président président ah kooku moom laa leen wax président moom mi ngi fi dañ koy laaj rek na ko bu sa position moom li mu wax. dégg naa ñuy wax rek naan bon waaw Hadjibou dafa ñëw daal di ñëw daal di bàyyi ah daal di yàq intérêt Sénégal nangam nàngama nangam xam nga man nag dafa am loo xam ne euh, lu am solo la ci man moo di fu ma toog aussi di défendre bu ma xamee ne euh, sama réew méngootuma ak moom xalaat ci ñu ko war a défendre te ma wax ko te ma wax ko aussi parce que man lu may kii rek dama koy wax pour dater ko pour l'histoire ma wax ko expliquer ma gis ne beneen doxalin la bu boobaa nag man damay jël sama responsabilité bopp ba mu incident yoo xam ne ku nekk dégg na ko fii ak le Niger ba mu amee nag ca laa toog bind sama lettre daal ne dem jot na parce que maa ngi fa nekk. ñu toogaat six mois ñu ne bon dañ lay joxaat six mois te boobu temps man sama bagage yëpp delloo naa ko parce que man dama bëggoon dem ma toogaat ñu bëgg faat six mois ma gis sama réew nu muy nu muy nu muy defee Euh, donc loolu itam euh, lu doy waar la. kon lan ngay tontu ñi ne. Ah. pour ñu dugg vraiment ci débat bi. waaw li tax nga samp sa ndënd. Hmm. pour nekk justement règlement de compte la parce que dafa am loo jàppal Macky loolu moom dégg naa ko moom mais loolu daf may reetaan loo parce que euh, da nga samp sa ndënd parce que da ngaa mere Macky Sall loolu moom wax bu yàqu la rek sérieusement man dama nekk ci ñi nga xam ne te bi may wax ñëpp ñu bari nekk fii ñu ngi may déglu. dama bokk ci ñi nga xam ne néew ma spectateur mais bi ñu redressé économie Sénégal ci ñi nga xam ne fonctionnaires yi ci doon liggéey guddi ak bëccëg ba xaaja guddi bay fanaan sax assemblée nationale parce que boobu temps assemblée nationale du taxaw minuit ci ñooñu laa bokkoon. nga gisaat ne euh, ni ñu yore économie Sénégal yow àndoo ci ni ñu yore sax Sénégal yow àndoo ci. ma ñëw fi wax ko waxaat ko expliquer ko bañ naa ba sax géopolitique régional sax wax naa ko parce que li may wax euh, li tax ma koy leeral ni mooy ñi ma ko doon wax ñi ngi may dégg bu dul dëgg nañu wax ne mosuma leen ko wax. ci sutura nga leen ko wax. ci sutura nii la parce que man fonctionnaire laa aussi moo waxee ko noonu. kañ la loolu commencé ni ñu yore. mën naa ne commencé na mun naa ne sax man bi ma fi nekkee sax commencé woon na tuuti. kon am nga ci responsabilité am naa ci responsabilité mais sama responsabilité boobu moo tax ba démissionné donc nga xam xam ne man xam naa suma responsabilité ci lépp am naa ci part de responsabilité parce que ne awma ci part de responsabilité loolu sénégalais yi may déglu sax dañ naan kii moom lu muy wax du dëgg alors mais nag ak ñu la mun mënti wax. bi président Macky Sall ñëwee ci la affaire bi mel ni rek da ngaa jóge ci oto boo xam ne mu ngi daw cinquante kilomètres oto bi di daw deux cent kilomètres rek loolu la mel. dafa jéggi dayoo jéggi dayoo dayoo bu wóor sax la jéggi dayoo donc boo demee ba gis loolu te yow nga nekk aussi euh, économiste de formation. nga gis ni ñuy accéléré yàqu-yàqu yi nga wax dégluwuñ la moo tax ma ñëw ne damay gaawantu bàyyi donc la ma waxoon ne damay bàyyi ma gaawantu bàyyi hmm. joraat sama sama sama sama indépendant nag ñëw nag parce que doomu Sénégal la moo tax ci loolu parce que wax nga sànq bi nga demee Grand Théâtre 22 ah. juillet am na phrase boo xam ne dafa ma marqué ci sa discours moo tax ñu bëggoon mm. nga ne l' élection de 2019 est un rendez-vous avec notre destin commun qu'il ne faudrait pas manquer malheureusement mm. mm-hmm. naroo cee bokk ci li ngeen xalaat ci li ngeen xalaat d'abord ah ak Macky Sall li mu xalaat moom da ci bokk ma ne li ngeen xalaat ak Macky Sall lu mu xalaat parce que teg na lu nekk faram fàcce ko mu leer loolu. loolu dama koy leeral teg na lu nekk yàq na élection yi yàq nañ deru Sénégal tuutil nañu Sénégal ndax Sénégal kenn mësatu ko woon dégg ci ay élection yi baaxul ak élection bi nee la demee euh, ba fii ñu toog ñuy wax naan euh, fichier bi ñaar laak fichier ba ñett laak fichier bi juróom la yow xamoo sax yow mi wóor na ma ne xamoo sax ñaata fichier la. benn fichier la. waaye yow dégg ma loolu rek ngay xalaat yow yow yow yow li la administration déglu ma. mais ñun ñii ñëpp waaw déglu ma loolu yëpp ay waxu kii la rek euh, mais ñun ñii ñëpp kenn xamul boo xamee fichier bi it xamoo lu nekk ci biir fichier bi bu fekkee ne am nga fichier te ne dama koy làq loo koy làqee loo koy làqee bu dee li ngay wax kay wóor na la jarutu làq alors mu nekk nag. yëf bu nga xam ne mooy la chose électorale te xam nga chose électorale mooy affaire bu nga xam ne consensus véritable véritable la war di am. mooy déggoo mooy déggoo waxtaan bu wóor la war a am te loolu yëpp li ko war a li ko waral mooy ñi nekk ci ku kujje politique bi dañu war a ku ci nekk respecter sa morom te commencé na ci état. ñi ci géewu politique bi. ñi géewu politique te commencé na ci état état moo war a jëkk a ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje politique bi parce que respecté leen mooy lii ñoo ko bokk te lii pour askan wi la pour suñuy doom la sunuy sët puisque pour ñoom la nag te ñun waruñoo taal suñu dëkk lépp rek nga waxtaane ko yow yaay yow yaay kilifa nga am nga am hauteur daal. mais moom dégg ngeen li mu wax li ngeen li ngeen sàkku lépp nee na daanaka ba yéen a mbuus ministre de l'intérieur nee na du ma ko def du ko def ah. donc ba mu leen woo waxtaan wuy jiwu leen ko donc waaw ministre de l'intérieur bu toog xam nga ne nag nañu wax dëgg ministre bu toog de l'intérieur bu toog ne man li ngeen wax yëpp du ma ko def président toog ci kanamu télévision yëpp ñëpp di ko déglu mu ne duma ko def waxe ko ci wax boo xam ne mu mel ni man ma toog fi naan du ma def ni xam nga loolu dafa ñaaw sax man keroog dama rus dama rus parce que bu doon suma sago euh, mu mu mu mu téye rek parce que kilifa boo ko nekkee dangay ngay dal wante kilifa boo ko nekkee te daloo bu ñu waxee nga yëkkati sa dënn te ku nekk xam na ne état dooleem xajul ci kenn. mais est-ce que opposition bi amul responsabilité si situation bi maanaam tension. xam nga xam nga responsabilité ni ñu la munti wax. responsabilité opposition bi mënul nekk lu une responsabilité subsidiaire li tubaab di wax une responsabilité subsidiaire ndax yow bi nga xam ne yow yaa yore. réew soo taxawee d'abord ne du ma du ma waxtaan parce que du ma waxtaan mooy. woote nañ waxtaan. waaye man la déglu ma gis nga loolu ay naxee la rek déglu ma man man fekkee naa fi lépp. Hmm. ba nga wootee waxtaan am ñu ñëw seet si la nga defoog ñoom sax quinze minutes ci sa bureau daal di gaawantu jóg daal di ne maa ngi dem damay dem xaw ma fan ngay dem ak yooyu loolu moo am ay magum jëm ay kilifa parce que ñun ay kilifa lañu nekk ci opposition lañu nekk mais dañ ay kilifa lañu. ay doomu réew mi lañu xam aussi sunu yelleef xam aussi li ñu li nga xam ne Sénégal moo ñu ko jox donc bu fekkee ne say ñooñ dañu ñëw di la seet si te yow nga décider ne da ngay da ngay da ngay waxtaan nga waxtaan mais est-ce que président sax war na waxtaan affaire élection loolu mooy d'abord question bi ñu war a jëkk poser est-ce que président de la république war na waxtaan affaire élection du cëram cëru la kooku cëru ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje politique parce que président boo ko nekkee ay président wu sénégalais boo nekkee président sénégalais yëpp. loi bi dafa différence entre président ak chef de parti. moom laa wax loolu laa la wax moo tax ma ne la loolu mooy mu lay ci lay ñëw nga nekk président de la république donc da nga nekk koo xam ne dañ da nga war a nekk ci kaw. jaboote ñëpp pour nga jaboote ñëpp dangay génne sa bopp ci jeu politique bi génne sa bopp ci jeu bi mooy d' abord. nga nekk président de la république nekk chef de parti bu ñuy bu nit ñi di xastante di waxante sax lu dëgër en tant que opposant parce que nit ñi oppose boo nekkee ci politique aussi da ngeen waxante yenn saa yi yenn wax yi mais bu ngeen di waxante yenn wax yi boo waxee président sax yaa ngi tiit na ah est-ce que président laa waxal wala chef de parti bi laa waxal parce que boom boo waxee ñu ne xamuñu chef de parti la wala président bi nga waxal ñu jàppale ne yóbbu la kaso. wala ñu yóbbu waaye loolu lu bees mais dafa war a dañ. parce que nekkatuñu nekkatuñu. au vingtième siècle dañu nekk au vingt unième siècle. Mhm. léegi àdduna dafa dox dafa ndànk dafa ndànk ma leeral. dégg nga mhm. ba ma posé question damay leeral yenn yi parce que tam. donc nga ñëw def loolu waxtaanoo waxtaan ba ca war. Abdou Diouf ak lu ñu ko mun te wax président Abdou Diouf mais code consensuel bi bi ko nit ñi discuter ñëw lu mu wax du ma ci dindi virgule dama ko yóbbu assemblée nationale yóbbu ko assemblée nationale bañ koy discuter Abdou Diouf a nga foon. waxtaan na ci Ablaye Wade bu mu ñëwee fii bëgg a def euh, troisième mandat ba pression bi amee nu mu def dafa dem de la jël auteur daal bàyyi man de su ma doon président Macky Sall aujourd'hui hmm. damay jël de la hauteur. maanaam daal di ne loi bii may joxe indi na mun na indi musiba ci réew mi. muy parrainage muy parrainage bi. parce que ku nekk xam na ne euh, la ko lal moom xam na ko. lan la génne ma génne ñeneen ñi ci ci kujje politique bi parce que xam na ne man bu ma duggee ci kujje politique bi moom dana daanu man loolu li may wax lu leer la. ah bon ah loolu dama koy wax. foo ko teg dama koy leer fu ma ko teg parce que xam naa ne maa ko ëpp doole ci yàq-yàq bi ñu def ci suñu réew. ak ci doole bi mooy waxuma la doole doole wu physique. non réseau je veux dama ne doole du réseau waxuma réseau. li may wax doole mooy parce que nga nekk ci côté peuple xam nga boo nekkee ci côté peuple bi di défendre peuple doole ju mag nga bu mu fàtte loolu. kañ nga commencé défendre peuple kañ laa commencé défendre peuple bi man j'ai toujours défendu le peuple toujours défendu le peuple budget yi ma daan defar sax bu njëkk. Hmm. buñ ko daan def lu volet social dama ci doon imposer lu bare bare bare bare ne lii lañ koy defee ñu may déglu. alors donc ba mu commencé donc moom euh, défendre peuple boobu moo ñu war ñun ñëpp moo tax il faut ñu mu delloo si xelam man su doon man. Mhm. Euh, moo tax moo taxoon ma bëggoon ñu taxaw ci parrainage. parce que déposé nga. Mhm. dem ca conseil constitutionnel di mhm. fooy rejeter sa candidature. conseil gis nañ arrêt euh, euh, décision yi nga xamante ni rejeter guñ ko dañuy leeral foofu. lii de la maa ngi nii yi nga xamante ni waaw dama lay wax moo tax ma bugg ko leeral. defal ndànk waaw defal ndànk damay leeral defal ndànk li ngay wax yooyu moom xam naa ko. décision baa ngi nii. conseil constitutionnel d'accord naa ci mais dama lay wax ci décision bi. ñun dañu def suñu conseil constitutionnel dañu def te dinaa ñëwaat foofu dañu jël suñu dossier yóbbu ko conseil constitutionnel ne xool na ko ah ba mu ko xoolee mun ne ñu ñun yii baaxul yii baax na donc puisque yii baaxul yéen da ngeen di toggandi wante ci biir décision bi nee nañ la dàq loolu taxul ñu dàq ak ngum la completement parce que décision finale bi le 20 la ñu dugal ay du woon sax recours dañu dugal ay observation pour wax ne ni ngeen doxale am na lu ci rëq-rëq am na ay problème donc ñun problème yi lañu gis ñoom ñu jël nag seen décision daal di ne yéen ñi dundeegum nañ leen mënu leen def recours léegi balaa ngeen di def recours moom mooy ba ñu dindi ñii ba pare ngeen def recours. moo tax ba ñu ba ñu ba ñu dindi ñii dindi ba pare ba ñu jël ñii jël list bu njëkk bi. mooy cinq yi mooy yi bu ñu ko jëlee ba pare foofu ngeen di mun a defee recours. moo tax ñun defaat nañu recours dugalaat nañ suñu recours. décision bi ñu gis daanaka yow nee naan mille huit et un. waaw maanaam électeurs ñoo la ne mais bi ñu xoolee ba xool quarante deux mille cent trois. waaw jàpp ni daal ñoom ñoo ci valable. waaw loolu la ñu wax mais man ba ma ñëwee ma jox suma service yi man leen liggéeyal leen ma ci loolu parce que loolu jaaxal na ma parce que man li ñuy liggéey xam naa ko bañ ko defee euh, lañ ci gis dafa jéggi dayoo dafa doy waar sax. dafa doy waar mooy mooy li ma wax rek xam nga président boo ko nekkee mhm. yore réew euh, da ngay moytu di dugg ci ay affaires yoo xam ne euh, affaire yu doy waar la daal bañ ko càmbaree xam nga lu ma gis hmm. déjà ci trois régions parce que ñu ñu jox ay kayit yu toll nii la ñu jox dañ ne lii mooy seen région te ñun ñu joxoon leen cle bu ñu buggee ñu vérifier woon ko bu gaaw nu ñu waroon def daw ñu woon seen région yi mu ngi ci biir cle bi nous sommes à l'ère de l'informatique ñetti région laa xool rek ñett ba ko xoolee ci la ñuy wax région la y a plus de 4000. yan région la. yan région laa ti sax Dakar Thiès Diourbel y a plus de 4000 te eggaluñ de eggaluñ région yooyu de ci liñ ci jotagum xool rek ci région yooyu ñett yooyu y a plus de 4000 yoo xam ne ay électeurs lañ ñu ngi ci biir te ñoom ñu ne bokku ci nekku ci. te ñu vérifier ko ak fichier bi mu nekk ci biir fichier bi loolu du loolu du doy waar xam nga lan la nga bind faal fa benn L bàyyi beneen L ñoo ne la déedéet te lépp baax ñu ne la déedéet kooku baaxul mais loolu dañ ne woon bu amee dañuy dem ca fichier yañ leen jox ñu xool ndax am na wala amul loolu la ñu waxoon parce que fichier moo doon départage defuñu ko ñu ne déedéet xool nañ ko jeex na faal nga dem yeneen ak yeneen yeneen yëpp yu mel noonu est-ce que minimum bi maanaam ñi inscrit ci fichier bi man li ñu laaj minimum gën gaa néew. gën gaa néew 53000 la. 53000 waaw ñoom loolu lañ wax ci décision bi bi nga xamante moom la gis. daanaka 6 régions 7 lañ doon wax. waaw yow 2000 signatures au minimum. ci 7 régions waaw yow 6 yi nga am. déedéet 7 régions la amoon dafa nànk. bon man décision bi parce que bu ñu génnee li ñuy génnee kay doo doo am. bu baaxul bu ñu génnee bu ñu génnee ne li baaxul te yow nit ñooñu ñu ngi ci biir est-ce que du ay doublon. waaw du ay doublon kay li ma la wax kay du ay doublon yooyu itam xanaa kay ñun kay liggéey dañ li ñuy liggéey nee la kay lu wóor la mi ngi nii ñun quatrième la yoon xam nga ñaata am ci doublon 1100. ak li ñu liggéey yëpp ak ñoom ñu nekk suñu kanam yëpp 1100 rek lañ ci am seetal kan moo am 1100 doublon donc. mu mu wóor ne ñun liggéey bu wóor la ñu defoon. maanaam da am sa logiciel. voilà bu ngeen doon liggéey. ah mais bien sûr nit ku nekk da ngay jël sa matuwaay. est-ce que méngoo naag ba nekk. bu baax moom seen seen seen logiciel boobu li mu méngool mooy bu 2017 bi parce que ñoom logiciel li ñu yoree kenn xamu ko te boo gisee bind naa ko parce que man lu may wax dama koy bind keroog suma lettre bi ma def wax naa ci loolu ma ne conseil constitutionnel def leen ndànk parce que kii defar na ay yëfam ba pare jox leen lu baaxul ne leen jugé leen ci lu baaxul. kii mooy Macky Sall. moom laay wax moom la du keneen. dee hmm, ko tudd ko moom la Macky la du keneen. parce que préparer na yëfam yàgg na parce que ba mu duggee pale rek la commencé naan deuxième mandat lay xeex lay toppatoo donc ku commencé déjà dugg palais rek commencé toppatoo deuxième mandat te xalaatoo sax économie réew xam nga ne loolu déjà mooy loo munti def rek na nga ko am alors ñu ñëw ci loolu nga jël defar yëpp ba yëf yee yàqu nga jël ko daal di koy jox conseil constitutionnel léegi ñëpp. koo gis Sénégal mi ngi ŋàññi conseil constitutionnel man déggoo moom ma ŋàññi conseil constitutionnel koo gis mi ngi ŋàññi conseil constitutionnel. defal ndànk rek defal ndànk du ñu rejeté rek Sénégalais yëpp yow ci biir Sénégal nga dëkk gis nga yow Sénégal yëpp a ngi ŋàññi conseil constitutionnel xam nga loolu lan moo koy indi Macky Sall def na ba nga xam ne moom mi nga xam ne moo am responsabilité principal ci li xew ci suñu réew fexe na ba pousse ko maintenant conseil constitutionnel patate li ñuy wax patate pomme de terre bu tàng boobu mu pousse ko conseil constitutionnel ne nag bu subaa nag lu muy wax ah gis ngeen de ñu jugé nañu donc euh, man euh, dama topp yoon ba ci biir ñii ñoo ko jugé assemblée nationale daaneel na ko lu tax ma ne daaneel na ko bu amee problème bu mel ni ñu ne pétrole lu Sénégal coow laa ngi ci ñi ñi naan pétrole ba nangam nangam pétrole ba euh, ñu ngi koy jël président bi mi ngi ciy def lii ñu ngi koy njabootam mi ngi ci def lii loolu pour dimbali sax président. defal ndànk pour waaw dama ne waaw déedéet génnagul ba ñu jënd dara man bind naa ci sax loolu. Euh, li tax ma ne daaneel na ko lu mel noonu su amee ci réew ak réew bu mun munti nekk te mu am démocratie la ñu war a def mooy assemblée nationale dafa ne ah nañ def commission enquete ci lii pour dimbali sax président peut-être que président sax xamul mais pour dimbali ko ñu enquête ci def rapport jébbal ko. état bi daal di woo ña nga xam ne ñoo ci nekk ne leen lii nangam nangam enquête leen comme ni ñu koy defee ci pays civilisé bu ñu ko defee mu kii mais bu ñu ko deful nan nga mun a wax. keroog ci keroog ci pare keroog ci loi ma nekkoon na fi premier ministre keroog ci loi yabal sa ministre assemblée nationale keroog ci loi bi bàyyi ma rek moo wax ci lii. ci loi wu bi ñëw. Sénégalais aussi ñu ngi lay déglu ngi may déglu moo tax may wax li man kay lu ma def assumé man nee naa la. déggoon ma la est-ce que mës ngaa yabal sa ko comme comme da ngay prôné loolu. man dama ne assemblée nationale laa wax xam nga neewu ma sama ministre pour ñu kii ko man mi auditionné donc bu ne ministre sa ministre ma nekk naa ministre ñu auditionné ma man woo ma auditionné ma ma tontu ca donc loolu. du lu du lu grave ñu woo ministre euh, questionné ko woo ministre laaj ko loolu du lu du lu grave parce que loolu leeral rek la. ban point de vue nga am ci parrainage bu au delà ji maanaam li nga ko ak yi nga xamante ne. parrainage bi li ma wax musiba la ci sunu réew. musiba la ci sunu réew ci niñ ko doxalee gisoo kenn kenn ci opposition bi kenn ci membre opposition te maa ngi leen di féliciter ci si action yi ñuy jël yëpp parce que ay vrais patriotes lañu. alors gisoo kenn ci opposition bi ah ci li ma gis boobu ku ci d'accordul ci parrainage koo wax d'accord nañ ci parrainage nañ ko defee nañ ko waxtaanewul pour nit ñi mën a déggoo ni nii lañ koy defee loolu la nit ñi d'accordul mais du parrainage bi parrainage bi c'est normal ñu def parenage nit ñi xam ne bon lii la ñu kii ko si yaa ngi def parrainage moo la rek dara hmm. yow bu fekkee ne da ngay def parrainage kay te nga ne yow da nga ci da nga bëgg yow euh, que ñu def élection yoo xam ne. Euh, candidat yi duñu bari li nga waroon def li nga waroon def ti nga waroon d'accord euh, élection yu yu mucc ayib ñu den la léegi nañ def benn benn bulletin unique nga xam ne bulletin unique bi arrangé wul nga ne déedéet duñ def bulletin unique ñu ne la kii nga defar sa parrainage ñu wax nga xam ne parrainage boo koy def mais pourquoi nga wàcc pourquoi nga wàññi kii bi pourquoi nga wàññi caution bi yow bu fekkee ne yow kay yow pour téye ay nit rek la defal sa parrainage. noo gisee sorti premier ministre yaa ko fa jiitu foofu moom ne woon na daanaka Macky Sall du jàkkaarloog lépp cinq candidats dafa mel ni affaire baa ngi bëgg am de. xam nga nag vraiment premier ministre moom suma rakk la bëgguma di wax sax yenn ci moom wante dama xaw a rus nag quand Euh, dama ne nag ku ku am xam-xam la daal parce que la mu waxoon moom moo am loolu nag moo ma ci jaaxal. Hmm. comme que moom la mu waxoon moo am bon. danaa dem talal comme toll nañ ko sama loxo pour mu ñaanal ma. Hmm, hmm. comme toll nañ fii léegi lan nga fas yéene def surtout yow cas bi la nee nga déposé nga recours. Ah. lan ngay xaar ci. xaar recours bi parce que man loo gis rek dama koy teg ci yoon damay doxal def naa lépp wax naa ba ma waree bind bind naa. le 22 juillet bind naa keroog bindaat naa beneen lettre maa ngi préparé waat beneen lettre ci économie bi sànniwaat leen ko joxaat leen ko pour ñu xamaat li nga xam ne mooy. di ñu ko joxaat di ñu ko joxaat ci biir danaa leen ko danaa leen ko danaa leen ko joxaat. léegi bu bu fekkente ni. Hmm. dëggal na li mu jox maanaam. bu rejeté sa candidature looy def. bu boobaa ñu gisewaat man a yow ba xam man xaw ma man parce que mënul moo ci wax man ci sama bopp man man candidat la président gis nañ fan yi tamit euh, ay cadres yoo xam ne yow lan àndaloon. Mm-hmm. dem nañ ñu transhumé ji dem fekk président Macky Sall ah, lu waral lool. ah loolu nag day man xaw ma li ko waral moom da koy laaj ñi nga xam ne dañoo dem rek li ma mën a xam daal li ma wax mooy ñun dañoo gëm li ñuy def mu ne ñun dañoo gëm li ñuy def mooy ñun ñi nga xam ne ñoo sos démocratie et république xalaat ko sos ko te ñu ngi nii toog. gëm boobu nag ci li may wax suñuy xale yu réew nañ sax ci gëm-gëm boobu mooy nit loo dugg rek na ci dugg ak conviction mu nekk lu wóor parce que loolu mooy taxawaayu doomu Sénégal bi ñu bëgg man bi may xam ne moom lay wax ci sama projet bi may def mooy xale yoo xam ne comme ni ko suma rakk Bougane di waxe gëm sa bopp nga xam ne dangay ngay wax ne yow euh, taxawaay bi ngay taxaw da nga gëm li nga xam ne ci nga nekk. moo tax xalaat lu tax ñu moo tax gone Sénégal ma leen di wax ñoom laay waxal ñu gëm seen bopp te taxaw tem li nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg a def ngeen taxaw tem faire face te ne du fi am. parce que bu amee bu hmm. amee. mooy ngeen yàq sunu réew. ñu yàq sunu réew. cadre yi est-ce que jëm naa waxee loolu yàq boobu mooy ñu daaneel démocratie daaneel république te moom laa gis ñu koy def loolu nag doomu Sénégal yi ñoom ñoo war a taxaw yéen ñi doomu Sénégal yi yéen war a taxaw daaneel loolu du fi am. ngeen def ko nag ci defin bu gën a. gën a rafet di di li naan insurrection kon. li du insurrection kooku bu yeboo sax ñun ñëwul wax ma ne ma insurrection man li may wax dama ko bind. parce que bind naa ba ne xale yi na ngeen roy ma ne ko lu ngeen gañe rek bind ko dama ko bind ne lu ngeen gañe sama lettre bu mujj bi ma ne lu ngeen gañe rek dangeen ko gañe ci non violence ma jox leen sax exemple Madiba Nelson Mandela mi nga xam ne lu nekk def nañ ko ko mu nekk référence pour Afrique nekk référence pour ñun ñëpp ñu am fierté ñun sax ne ñun ay africain lañu ay africain lañu ndax moom donc taxawaay boobu laa wax xale yi taxawee ko faire face man mi damay faire face. ci naka moom laa la wax faire face question wàcc tali bi mooy lu ma war a xeex danaa ko xeex. lu ma war a xeex dinaa ko xeex. gis nañ da ngaa muscler sa discours fan yi parce que mais dama ko muscler parce que dama gis ne mel xam nga muscler bi yëpp lan la. du sax dama dama toog wax ci njëkk wax ci teraanga. bind toog grand théâtre wax ma defe noonu ñi may waxal dañuy dégg ne ñun ay nit ñu responsable lañu te ñi nekk ci opposition bi yëpp nga gis leen ko ñu taxaw muy vingt cinq yi ñuy wax gisoo ci kenn ku irresponsable ay vrai patriote lañu ñoo xam ne seen réew rek moo leen tax a jóg am na ci ñoo xam ne ba ñu commencé politique xaw ma ban at la am na ci ñoo xam ne ñu ngi door a dugg ci kuje politique mais koo ci gis mu wax rek nga xam ne ay patriote lañu donc ñooñu bu jógee taxaw di wax ci seen réew. nañu xam ne ñii dañuy wax ci seen réew te lu baax rek la ñu bëgg ci suñu réew. mais bëgguñu yàq suñu réew kenn bëggul yàq parce que gis nañ opposition bi ak Macky lu ngeen xëccoo moom mu gañe leen. waaw lu ñu xëccoo mu gañe leen mais xam nga lii am solo mooy Macky Sall erreur bu muy def bi muy def mooy erreur bi gën a garaaw. ban la. erreur bi mooy nga jublu ci ay élection jël alalu réew mi yëpp dem jëndee ko ay fetal. jëndee ko ay jëndee ko ay ay ay ay grenade jëndee ko ay oto. yoo xam ne preuve ci loolu naa ko waaye yow tam gis nañ ko yow tam ku nekk gis na oto police yu bees yi ku nekk gis na kii yu kii yu bees yi daw fi ku nekk wax nañ ko ku nekk gis na solu gars yi donc yow yaa ngi jëm ci élection daal ne bon man xam nga calculam calcul bu yomb la danaa danaa yàq élection yi bu yàqu li may def mooy bu nit ñi génnee ci ma dem ba gañe yàq élection yi ba gañe bu ma gañee nit ñi génn ci tali bu ñu génnee ma gérer situation bi un mois deux mois après tension bi wàcc ma toog ci sama fauteuil mais loolu erreur la dama bàyyi ma rek dama wax rek dama ne waaye bilan bi bilan bi bilan bu gën a nekk musiba du bilan bi bilan bi bilan musiba la te naa ci dinaa la wax léegi nga ñëw def loolu xalaat loolu formate loolu ci sa biir bopp yow président nga ñëw peuple buy jóg peuple buy jóg lu tuuti rek mën na ko yëkkati parce que ku nekk xam na ne tey man day man en tant que sénégalais rus naa génn fii ci biti naan Sénégal ça va Sénégal la ngay dox ñemewuma dem fii rek ci waxuma la ci ci yenn gox yi rek fii ci biir ci biir Ndakaaru ak yenn gox yi fii ci booru Ndakaaru moo wax ne man Sénégal mi ngi dox peuple bi gis nañu fu ngeen woote it bari leen fa waaw bari wuñu ngi dem liggéey dafa mel ni wuñ sax opposition waaw loolu nag loolu noonu la noonu la parce que il faut am ñaar ak ñett yoo xam ne dañuy wax ni ñi di leen dégg wante nag gis nga euh, nit ñi ni ñuy denc seen biir xol ne pat moom defe na ne nit ñëpp kontaan nañu parce que ñi ñi ngi koy woyal rek di ko xalamal naan ko yow yaa fi gën nangam nangam sa bilan bilan lan la mm-hmm. bilan mooy TER bi nga xam ne scandale la. nu mu nekkee scandale. c'est un scandale man maa ko wax c'est un scandale parce que li tax ma ne scandale la xam nga booy jël réew di ko defar dafa am ñaari yëf yoo xam ne du am solo bi ci jëkk mooy li may wax tous les citoyens sont d'égale dignité nga dëkk Ndakaaru nga dëkk Fongolimbi nga dëkk Tamba nga dëkk Ziguinchor foo mënti dëkk ci réew mi rek nous sommes d'égale dignité. te terroir yëpp ay terroir yëpp ñoo yem dignité moo tax mu indi moom defal nank rek waaye defal nank waaye PUDC bi PUDC bi ñu jël xaalis def ko ci ba pare PUDC bi néew ma du néew ma programme bu bon la de mais li ñu def ci terre bi sax bu ñu ko ci defoon man ma tàccu ci yooyu programme bu ñu ko ci defoon xaalis boobu sax ma tàccu parce que li tax may tàccu mooy danañ defaraat ay nga toog fii ñu naan la ñii amuñu ndox ci biir Sénégal bi nga jël terre bi def ci mille trois cent milliards ci li ñuy wax man xaw ma sax ñaata la fi mu ne kenn mënu la wax ne la bi lii la te TER bi buñ la waxee ne la fa mu waroon egg sax eggu fa mu def mille trois cent milliards nga yàq dëkk yi yàq yàq Tëngéej yàq Bargny mais séparé séparé séparé dëkk yi cinquante milliards pour indemniser mille cinq cent familles laajal demal demal taxaw Tëngéej nga ne bon ñi impacté yow ñeme nga lool. demal Tëngéej bee ko wax. la président wax. mu ngoog yow sax yow ñeme moo ko wax. yaa ngi naan président bee ma ko parce que bokkuma ci mais li mu wax laa la wax dama ne. annoncé na xaalis pour indemniser famille li mu wax li mu wax ne def na ci cinquante milliards demal fii rek te nga demal demal Bargny nga laaj population yi ñu impacté ñu ngi manifester toujours loolu rafetul munoo def alal yu toll noonu eggaluma woon alal ju toll noonu nga def ko ci fan nga def ko fii bàyyi lan gannaaw senegal yëpp nga bàyyi ko mille trois cent milliards man su ma ko doon def man sama programme li dafa leer nee naa ci chemin de fer dama koy dekkalaat nga jël xaalis boobu def ko ci Dakar Dakar Dakar Saint-Louis def ko ci dakaar Kaolack defaraatal raay bu jëm Ziguinchor defaral raay bu jëm euh, frontière ba def ñu ngi rey fi mu nekk sunu port bi defaral raay bi nga xam ne moo jëm Bamako port bi mi ngi daanu cinquième du port port de la région. de la quelle ah de l'ouest de l'Afrique de l'Ouest. ñuy xëccoog Abidjan. ngay xëccoog Abidjan ñu ñu raw la téema sax raw la nga naan ma lan yow yow fi mu nekk ñu ngi lay daaneel te yëgoo ko. Hmm. te loolu li tax moo wax ko mi ngi may dégg moom président Macky ñëw naa fii du li ma wax moom dama koy génne di ko wax déedéet. parce sunu réew la. ñëw naa fii wax ko ne ko poor bi def bàyyi ci xel raay bii jëm ba ma ko bàyyi ci xel président parce que sa poumon économique mooy raay bi. ak ak ak ak ak ak port bi parce que lu tax ma wax ko ñun sunu économie mooy économie CEDEAO du beneen économie mooy sunu marché naturel boole ceeg léegi Union africaine def na ne marché bi ouvert na donc Afrique donc looy def da ngay wax ba nga sa économie mun a liewu ak sa marché ku fi produire mun ko jaaye ji wante nga de da ngay takk sa économie sa port baaxul raay bay yóbbu kii bi baaxul oto yi port bi nu mu baaxul te gis nañ ba léegi mais port bi baaxul port bi baaxul ku nekk xam na ne poor bi baaxul parce que investissement bi ñu war a def ci biir port bi defuñu ko ci te man ba ma koy wax loolu ëpp na juróomi at ma wax ko ko ëpp na juróomi at li ma lay wax ma wax ko ko parce que man lu may wax rek euh, ñeme naa ko waxaat parce que mënul weddi ne waxuma ko. Mhm. tension de trésorerie bi yaa ko fi sulli. tension de trésorerie bi kay kooku wala. mais bu bu baax sax dama ko dëggal bu baax a baax. parce que li ñuy wax ñi yëpp taxawul déficit bi ñuy wax sax ëpp na loolu. 115 milliards. déficit bi ëpp na ko. ñaata la endettement bi ëpp ko. ñaata la ci sa xayma comme da ngay wax. aussi statistique comme damay wax statistiquement. gis nga déficit bi ëpp na 3 et pour cent yi ñuy wax ëpp na ko. parce que li tax ma ne ëpp na ko mooy def nañu fii ay lettre de confort xam nga lettre de confort mooy lan. Mm-hmm. toog bind sa lettre daal di koy jox nit na ko demal ci banque bi avec la caution de l'état ñu jox la xaalis loolu boole ko ci. ñan ñoo bénéficié wu ci yooyu lettre. ah ñan ñoo ci bénéficié wu gis ngeen ko fii bi ñuy tabax fii bi ñuy tabax fii bi ñuy tabax ci ci ci ci ci kii bi bi tabax ci ci jamñaajo euh, bi joxe nañ ay lettre de confort lettre de confort yaa ngi ne xus ci dëkk bi. ñu joxe ko boole wuñ ko ci entreprise yi ñu ngi leen ameel bor yu dul jeex boole wuñ ko ci alors entreprise yaa ngi leen ameel boole woo ko ci leen déficit boole woo ko ci am na ay commande publique yu nga xam ne sax amul contrepartie budgétaire c'est-à-dire nit ñi def nañ ba pare te amul budgétiser wuñ ko woon sax loolu foo koy ba foo koy def doo ko ci boole. barke dem leen jóge Paris de gis nga groupe. waaw mais loolu xam nga loolu man man def naa ko groupe consultatif loolu ñëpp xam nañ ko. kooku moom ah, loolu kiiwul kenn. maa ngi leen di félicité boo amee confiance béyoon dafay maa ngi leen di félicité confiance ni ni sa discours alarmiste moo wax la ne déwul moo rek moo wax xam nga man am confiance ci Sénégal xam nga defal ndànk xam nga loolu yëpp gis nga euh, ni communauté internationale di fonctionner da nga koy xam loolu c'est normal ñu ne Sénégal ñu ngi koy jàppale parce que président bi mi ngi góor góorgóorlu nangam nangam parce que mu ngi nekk veillu élection mu defar lii pour dem Paris pour caution caution caution bailleur de fonds yi mais conditionnalité yi nekk ci gannaaw loolu xam nga ko yow mais mun naa la naa la jox cinq mille milliards mais boo tasaaree administration ba administration tasaaroo completement te moom la ñu gis fi mu nekk politiser administration bi yàq sunu administration completement ba tey comme li ma bind ci suma lettre bi toujours damay dellu ci suma lettre parce que lépp bind naa ko politiser administration ba nga xam ne tey compétence yi dañ leen teg fële di jël ñoo xam ne dañuy politique directeur yëpp ñu nga ca politique ba alors bu ñëpp nekkee dépp ca politique ba ku ma jox teraanga kat da nga may politiqueal ku ma jox teraanga yooyu ñëpp dégg ngeen ko fii Sénégal ku ma jox teraanga ah man da nga may da may da nga may da may da nga loolu président war na wax loolu. Mhm, am na solo waaye dama naan déedéet. <laughs> bëgg naa wax yeneen parce que malheureusement. ma ne yàq na sunu administration. <laughs> tasaare na sunu lépp. waaw moo taxoon ma bëggoon laa laaj ci candidature yi ba léegi képp kaawu Karim Wade. administration bi administration bi yàq na ko. yàq na sunu administration complètement politise na sunu administration. Mhm. ba nga xam ne tey fonctionnaires yi sax xamatuñu seen xel sax ñu ngi ci mhm. jaxasoo. est-ce que yow li ñu doon wax naan plan B wu PDS nga amul lu mu yàq ci image ci yow. man du yàq sama image xam nga man loolu du yàq sama image parce que li ma waxoon rek tontu boobu laay tontu xam nga booy wax bugg maa jaxaseeg PDS da ngay sonal sa bopp rek loolu lañ doon wax pour bugg maa jaxaseeg PDS tey PDS maa ngi leen di woo ñoo leen woteel ma bu ma nekkee candidat ñoo leen woteel ma où est le problème waa Macky Sall yi sax ñoo leen woteel ñi nga xam ne Macky Sall mii laa la wax ñi nga xam ne gëmuñu ko déglu ma rek dama ne dama ne loolu invalidé wu ma kenn dama ne dama ne waa Macky yi nga xam ne gëmatuñ ko ci ñu ngi nekk ak moom te gëmuñu ko bu ma nekkee candidat ñu ne parce que de gis naa fi image ay ay information ñu ne yow sax da ngay waaj pour fekk Macky Sall waaw loolu day loolu day Macky moom xam naa ne fi mu nekk euh, loolu rek lay bay loolu lay góorgóorlu mu ngi ciy xeex nag bu dégg bëccëg dafa yoone ndaw waaye man la ndaw yi kay ñu ngi ne xus bu dégg bu dégg bëccëg ñu ngi may ñi ngi ñi ngi sama kaw ku nekk di woo soxlawul ma leen Euh, indirectement ak directement ñi ngi wóor waaw waaw bi moom kay président bi xam nga moom nee na sax yow kiyam nga nangam nangam dafa bëgg nga liggéey ak moom dugg fi génn fii xam nga nag man ci loolu li ma ciy wax rek mooy leen man je du côté du peuple le peuple mu ngi souffrir. mais peuple bi yabaluñ la sonn waaw yabaluñ ma wante man maa yabal sama bopp nekk seen nekk seen wax waxkat <laughs> parce que peuple bi moom. sunu peuple la ñu ñëpp ci la ñu bokk bu ma leen waxalee sama bopp laay waxal alors donc peuple bi man ci côté peuple bi laa nekk te moom nekkul ci côté peuple bi parce que gisul coono peuple bi parce que nit boo nekk ci côté peuple mooy nga am xolu yërmande yaay kilifa nga am xolu yërmande ci sa peuple. li muy wàcc ci gox goxaat yi est-ce que yow wàcc nga ko fa moom. moom waaw d'accord na ci gox goxaat yi mais bu fekkee ne da nga jël alal ji alalu réew mi yëpp jox ko fukki nit daan ne teeru leen ma ñëpp teeru la. bu ko naa ñoo ci kaw bu ñëwee ci defal naa président bu ñëwee ci gox. ñëpp day am curiosité gis président ah kuy président bi kii mooy président bi ñëpp mhm. ñëw taxaw kii yëpp ñëw taxaw kooku la c'est normal loolu loolu jaxalul kenn kaaw Khalifa Sall aussi bëggoon naa ñu wax ci parce que yow dem nga seeti ko ci kaso ba que Khalifa Sall suma xarit la suma frère la te amul injustice bu gën a garaaw liñ ko def le le le justice bi jugé kooku justice baa xam mais kuy waxal yàlla tey xam nga ni xalifa Sall bu gën toogoon ci wetu Macky Sall mhm. di tàccu ne ko yaa fi gën a rafet yow laa àndal du dugg kaso justice fan la nekk bu fekkee ne bu toogee ci wetam kenn du ko yóbbu justice bu toogul ci wetam ñu yóbbu ko justice fan la justice nekk mooy li ma doon wax rek ne moom dafay piéger justice bi. tànk ko waral wala dama ne dafay piéger justice bi. piéger justice mooy nga defar yow say dossier fële ba pare yàq ko ba mu ne yàqu yàqu nga jëbal ko justice xam ne justice moom justice rek la ciy mën a wax loolu musiba la. kaso ba ma ne tànk yow lu ko waraloon. tànk yow yu ko waraloon parce que xam nga bi ma fi nekkul nekk commission UEMOA aussi dafa am ay sart yu ma tënk yu ma tënkoon mooy boo nekkee président commission UEMOA waroo dugg ci affaire réew yi ñii ci politique ñii ci lële di ci wax yooyu yëpp doxoon na ba nga xam ne Karim mënuma ko woon dem seeti ci xalifa ba ma toogee ba nga xam ne nag léegi lépp kii na ci laa mun a dem seeti ko ma dem seeti ko pour ndax dama ko waroon a seeti parce que suma xarit la. li tax ñu koy toppee bëggoon naa ci sa xalaat xëy na mooy daanaka. Mhm. question yu mujj yi sax parce que bi ma xoolee sa CV nekkoon nga fi percepteur ak receveur municipal. Mhm. xalifa ñu ne. Mhm. dafa luubal alal joo xamante ni biram caisse d'avance la. waaw Euh, am na ay say collègues sax wala ancien collègue yoo xam ne ànd nañu moom dem ci kaso ba ndax ay percepteur lan ci wàllu municipal loo xam ci wàll waa xam nga mooy li ma la wax rek man li ma ci wax rek benn man wax naa ne c'est injuste li ñu ko def loolu laa wax foofu laa mën a yem li tax man ne c'est injuste mooy lii c'est un dossier politique éminement politique dossier politique la te donc boo jëlee ne dossier politique la rek leneen yëpp mënatoo ci wax parce que mooy li ma la wax rek. yéen ñi ñëpp xam ngeen ne tey kalifa Sall bu tàcc woon Macky Sall yow toog naa ak yow tey du dëgg dem kaso. loolu ñëpp xam nañ ko man loolu premier ministre xamoon nga existence su caisse d'avance googu. ma ne man xam nga inspecteur du trésor la caisse d'avance boobu ba mu fi nekkee kenn xamul ban at la. kooku koy ba kenn xamul ban at ko Khalifa di jëfandikoo. man laa loolu xaw ma ci dara li ma xam daal mooy li ma la wax dossier politique la kii du dossier beneen bu dul dossier politique. bu ñu ko buggee ne dañ koy def dossier judiciaire dossier judiciaire lu la neex mën nga ko ci def. dernière question bi lan mooy sa relation ak chef d'état yi sous région yi parce que am na ay xibaar yu ñu fi bëraloon ne Alpha Condé da jàppale ne woon nañ fi sax. waaw lu tax bëggoon na la fee nommé conseiller. waaw lu tax lu tax lu tax mun leen ko laaj ñooñu non li ma am li ma wax rek xam nga nag munoo nekk président commission UEMOA di liggéey ak CEDEAO boole ci parce que man euh, dama doon liggéey mois comme président sama ñi nga xam ne ñoom laa doon waxal waxtaanal mooy président yi laa doon waxal donc su amee dara ñoom lay dem toog ñoom ne leen lii ak lii yéeg lii ñu jox ma ci ndigal ma dellu si daal di joxe instruction ñu appliqué ko ci suñu institution donc foog ma am relation ak ñooñu loolu seen. jàppoon jàppoon ci sa candidature. alors euh, loolu mooy sama relation ak ñooñu sama candidature nee naa leen c'est personnel lu tax ñu bu ko yóbbu ci président yooyu di leen tooñ bàyyi jàmbur yi ñuy tooñ. man maa jóg ne Macky Sall li ngay def baaxul yëre moo askan wi yaa ngi sonal sa askan te yaa ngi pare taal sa réew. Mm-hmm. parce que mi ngi pare taal réewam parce que nit bu fekkee ne loo teg rek yaa ngi koy teg wala kon nga seddal déglu sax nit ñi parce que li ma la wax rek mooy respecter opposants yi nga xam ne ñoo nekk ak yow nga respecter leen di leen déglu du la wàññi dara du wàññi sa daraja. du wàññi sa maxaama. léegi comme élection yi li des ah. bëriwul. Ah. lan ngeen di xaar léegi parce que daanaka moins de 40 jours moo des. ñu dem côté bii kilifa dina yaa leen di woo ci jàmm Macky Sall société civile la même lu mu ti def lu mu munti def dana fi jóge loolu man dama koy wax lu mu munti def dana fi jóge. loolu électeurs yi koy décider. waaw ma ne la lu mu munti def dana fi jóge parce que électeurs yi ñoo koy daaneel parce que li tax ñu koy daaneel yow xam nga ne li mu def yëpp dafa bari carte électeur sax. nga téye ko daal ne du ma joxe carte électeur nit ñi te nit ñi war a wote ba fii ñuy wax moom ñoo téye seen carte électeur loolu président dina ko def loolu ministre dana ko def. mais nit ñi war a dem jëli seen i carte. waaye man bu leen nit ñi war a dem jëli seen carte yow boo dem ñu jëli sa carte yóbbu ko ay ay Tamba ne la Tamba nga dëkk fooy fooy gisee sa carte mais lu gënoon simple kay xam nga def am yomb léegi parce que nous sommes au vingt u unième siècle ñëpp am téléphone portable ba ñuy def mën nañu laaj ku nekk sa téléphone portable dugal ko ci su sa carte pare ñu daal lay envoyé message man ci dëkk yu ma nekk man daan daan daan daan daan fa dem noonu la ñuy def même sa oto boo koy dawal sax da ngay war a fay euh, droit de passage sa téléphone la ñuy envoyé ne la joxewoon nga deux cent dix ci des gaawal ñëw remplir ko sinon doo mun jaar waaw yooyu bu xewee foofu yëpp te ñun tam ñu am ay doomu Sénégal yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc bu baax ci affaire affaire affaire électronique màcc bu baax ci affaire affaire affaire affaire yooyu boo boo bëggee jàmm kay doo def loolu looy demee di jëli ji ay nit jàmbur fële ca àll ba ne leen njël leen ñëw leen ñu defal la li te ma wax leen nag benn révélation man mi sama bopp bi ma nekkee premier ministre ñee koy jaay yii yëpp am na ñu ñëwoon dañ may jaay benn module boo xam ne mooy module boo xam ne pour mën a xool euh, programme économique yi noo koy lié ba nga xam ne man en tant que premier ministre dinaa toog ci suma bureau mun a xam ministre bu nekk lu mu def ak programme bu nekk fu mu toll pour ma mën leen contrôler man maa defarlu loolu maa woo ay sénégalais ñaari sénégalais ñu ngi may dégg tey ñoom bu ñu ko déggee na xam sama conseiller laa woo ak benn xale boo xam ne informaticien man leen defaral leen ma logiciel boobu. nga xam ne de mon bureau comme ni ko Mahathir defee woon dama bugg a toog ci suma bureau di xam programme yëpp ndax mi ngi dox wala doxul te programme bu ci am rëq-rëq rek dama machine bi génneel benn dañ ci def mouchard boo xam ne dana ma wax ne ma ndax mi ngi doxam doxul ba may jógee ba may jógee premier ministre ka ma wuutu dama ko ne dossier yëpp. toppatoo ko mais dossier bii na ko toppatoo bañ naa ko bind ko ca fa ma ne. Souleymane Dende voilà Souleymane Dende suma rakk maa ngi koy nuyu au passage. alors donc loolu dafa war a am mais ñu dem jël carte carte carte électeur yi nga yóbbu fële bële yóbbu fële Tamba yóbbu fële kii kenn xamatul fichier électoral bi nga jël nit ñi di leen déplacer ndax bugg a gañe rek jël ñii yóbbu fële. jël ñee yóbbu fële ba ñun bu ñu déposé sax suñu suñu suñu parrainage ñu ne ah li nga déposé kat nekkul fii te fekk boobu su ñoom kal jël nañ sunu yëf dindi ko yóbbu ko fële yooyu yëpp yooyu yëpp jaru ko. am na solo xam nga loolu élégance mm-hmm. mooy li ma wax ñun doomu Sénégal lañu sunu réew la ñu gëm muy man muy sama naataango yi nga xam ne ñoom laa nekkal ci ci opposition bi muy. les sénégalais de l'extérieur nga xam ne dañoo sonn di la wax ay situation yu doy waar muy sénégalais de l'extérieur yi maa ngi leen di nuyu ñoom nag ku ci nekk ci turam ak ci santam ñu nekk ay jàmbaar nekk bitim réew di daan seen doole boo leen fa fekkee da ngay fier sax yow nekk sénégalais man dama daan dem bu may dox sax ñu ñu arrêté ma monsieur le premier ministre ma toog photo woog ñoom waxtaan ak ñoom déglu leen ñuy sonn foofu tey ñoo ñu sax seeni carte d'identité seen carte électeur mënuñu ko jot nga jël carte électeur bi kii nga Paris nga jël carte am yóbbu ko Nice kii nga Nice nga jël carte d'identité am yóbbu ko Paris kii nga Bruxelles nga yóbbu carte am fële loolu yëpp nga def ko pour lan loolu du élégance mm-hmm. or nit lu muy def rek na ci boole élégance bendoon naa ko parce que lépp dama koy bind. na dafa après ah, da nga koy taxañ cib téere. mais mais bind woon ma ne euh, dévolution au pouvoir les présidents yi fi nekk yëpp ils ont fait une dévolution boo xam ne bu bu rafet la avec grande élégance Abdou Diouf dañ ko gagné mu daal di ne gis nga bàyyi naa dem naa loolu du élégance président Abdoulaye Wade dañ ko gagné mu daal ne man bàyyi naa gagné nga dem naa moom tam na ngore rek. mais moom tollagul foofu kon xam naa toll na fa parce que sénégalais yëpp dàq nañ ko ñu ngi koy sant sénégalais yëpp dàq nañ ko ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur le amoon nañ wax dëgg yàlla am mm. mbégte ànd ak yow ci mm. émission mbokk yi di fàttali ni moom moo jiite kon mouvement bi di démocratie république ak coalition mm. Hadjibou 2019 ñu ngi lay sant di la gërëm ci ànd beeg télévision jërëjëf maa ngi gërëm di sant sénégalais yëpp di wax rek ne euh, nañu dal ci sunu réew nañu ñaanal ci sunu réew nañ ñaan pour sunu président bii nga xam ne moo fi nekk tey yàlla def mu delloo si xelam delloo si xelam mooy mu xam ne réew kenn du ci nekk ci bopp ba di def lu dul noonu walla di wax say ministre ñuy def lu dul noonu da leen di sant ñu def loo xam ne dafay yóbbu askan wi kanam loo xam ne dafay indi jàmm ci réew mi loo xam ne muy sénégalais yi nekk fii ci biir muy ñi nekk ci biti di daan seen doole di liggéey nga may leen jàmm yërëm sa askan yërëm sa sa sa ñi nga nekkal respecté nag ñi nga xam ne dañu ne yow li ngay xalaat ñun d'accorduñ ci xalaatuñu xalaat boobu nga d'accord ci loolu loolu mooy démocratie moo tax man mouvement bi ma créé woon ma tuddee ko démocratie et république ndax démocratie buñ ko nasaxalee ci sunu réew rek musiba la république bu daanoo rek ci sunu réew musiba la te république mu ngi bugg a daanu ci sunu réew te loolu moo tax maa ngi ñaan sénégalais yépp yàlla may leen jàmm ñun dund ci sénégalu jàmm ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñu jël alalu réew mi yépp def ko ci pour dimbali ñooñu pour ñu gën a jóg loolu mooy li nga xam ne mooy laay ñaanal sénégalais yi nga xam ne ñooñu doon déglu euh, ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew maa ngi leen di nuyu yéen sénégalais de l'extérieur yi gis naa seen taxawaay euh, yal na leen yàlla defal jàmm amin defal ñu ko ñun ñëpp mm. message bu am solo la boobu nga mm. terminé muy jàmm jooju mm. ñu ñaan ko kon fii ci Sénégal rawatina fi nga xamante ni fa la jëm ci élection présidentielle yi mbokk yi fi leen yem yéen ci seen émission face to face kon ñu àndoon ceeg président Cheikh Hadjibou Soumaré euh, dañuy profité encore une fois ci occasion bi rendre hommage sunu doyen El Hadj Ahmed Bachir Kounta ñaanal ko yàlla mu xaree ko aljana woyofal suuf ci koom ñu gërëm équipe technique bi nga xamante ni moom lañ àndaloon Alié Mbaye ànd ci ak Abdourahmane Hamza Diallo Ablaye Diallo moom it mi ngi woon ci équipe bi ak Mariam gisee mi nekkoon ci maquillage beeg Mamadou Dia gis na fi ñoo xam ne ci équipe bu président lan bokk ñu xamante ni suñu wëlëre lan muy le ministre euh, Cheikh Ahmed Tidiane Wan moom it mi ngi fi ak le ministre Ngone Ndoye di suñu ay tant ak suñu docteur en communication bële moom it di kilifa gu mag ñu gis ko noonu di rafetlu rek kon ànd bi nga xamante ni moom mooy. Euh, ci télévision Futurs Médias kon jox leen daje beneen dimanche incha allah euh, ba beneen yoon.